أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wajal kalaami rachidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki taalibe yi maa ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu di am mbégte ci fekkwaat jotaay bi di ñaan yàlla subhanahu wa mu nongu ko te bëggal ci Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu mi nga xam ne ci ronam ak ci biiram lañuy ñuy liggéeye di ci yëngutoo lépp lu ñu def ci ñu ko def ci biiram ak ci ay ak bëgg ak bëggam insha allah yan yàlla nangul lépp te defal na ci tawféex yu kawe suñ njort noo ngi fas yéene wéyal itam waxtaan wi nga xam ne moom lañ tàmbaloon ci dundu yonente bi alayhi salaatu wasalaam niñ ko baaxoo defe rek wax ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon nañ ne bi nga xamee ne woote na yàlla digal na ko mu woote lu mat ñetti at yoo xam ne da ko doon làq ak nëbbu ca ñeenteel ba la ko yàlla wax na nga ko wax ca kaw ba ko tàmbalee wax ca kaw nag <clears throat> waa dëkk bi mënuñoo muñ li yonente bi wax ak li muy woote ndax ñoom amoon nañ diine joo xam ne dépp ak kéefër na ak bokkaale yàlla te bëgguñu won dara lu ko soppi ndax dañoo amoon ay intérêt yu leen ci nekkal ndax ci kaw diine jooju ak la muy yàqu-yàqu ci lañ jaare woon yilif arab yépp moo tax kilifay dëkk ba nga xam ne moom ñoo ŋànk mbir yi xel xalaatut leen di soppi maanaam daraja jooju ñu ñu nekkoon moo taxoon bëgguñu woon ku wax jëm ci jeneen diine ju bokkut nekkoon moo bi yonte bi tàmbalee woote ci kaw ñu tambali ko sonal yemuñ ci mom kese waye mbolem ku gëm rek ñu tambal la sonal lool fofu lañ doon wax ba agsi ci jamono yi coono bob mi ngi tambali ci atum ñentel bi ci digg ba ba ci mujj ga ba ci atum juromel bi ba ci digg ba muy gën di reey rek nga xam day day tambali ndànk-ndànk di gën di reey di gën di metti di gën di metti ba nim agge ci ñobax tan dinañ ci agsi legi bi demee nag ba metti ba metti nag la yonte bi digal jullit ñi ne leen kat léegi bu leen fësalati seenu jaamu yàlla ak nekk gi ngeen nekk jullit jëratul fësal nga xam ne beneen leen digal koy nëbb nga xam ne booba bu ñu masaari julli dañuy génn dëkk ba ba tolloog ba dem ba ca xur ya ci biiti dëkk ba ñu nekk fay julli waaye daw ñu nangoo julli ci biir dëkk bi ci loolu itam yonente bi alei salatu salaam daa mujjoon dajeetut ak saxaaba yi këram dafa dem ci genn kër goo xam ne ca peggu dëkk ba la ne ku ñëw al arqam ibnu abil arqam moomoon ko bokk ci maanaam al banu maxzum al maxzum yi ca wetu safa ca ginnaaw safa foofa la yonente bi daal dajeeg jullit ñi kër googa la mujjoon jàpp mu ñu fay daje nga xam ne li liñ daa def lépp ci nëbb la la dem bu ma la masaa di wax ak jullit ñi day dem ba foofa du wax ak ñoom yàlla dogalit <clears throat> bi nga xamee ne mbir mi metti na ba metti xam ngeen ne ci jamono yooyu da yàlla wàcce suuratu kahfi suuratu kahfi ñetti laaj la la yéefar yi amoon doon ko laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy mbirum ñi ñu tuddee asxaabul kahfi ak mbirum Moussa na Moussa ak Xudar na Xudar ak lu aju ci ki ñuy wax dul xarnay ni ñetti mbir yooyu yëpp nag ci saaroo ba mu wàccee jamono yooyu bokk na ci li ci jullit ñi dégg mooy gàddaay mën naa am ndaxam ngeen ne suratu kahfi yàlla da cee net li ay jaamam yoo xam ni dañoo nekkoon cib dëkk di fa jaamu yàlla waa dëkk ba taxaw temm ci xatal leen di leen xoqtal di leen metital ba nar leen a faat yàlla digal leen ni wa id ictazaltumuuhum wa maa yacbuduuna illa allaha fa'wuu ila alkahf yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayi lakum min amrikum marfiqa mooy ginnaaw sono nañ leen beddi leen nar leen a faat digal naa leen ngeen dem làqatu ji ca xuntimale xam ngeen ne xuntima bañ fa demee dafa nekk xunti moo xam ni bokkut ak xunti yi ci def ndax dañ fa dem fekk ñu àgg fa àggub coona tëdd di nelaw yàlla dogal ñu nelaw fa ñetti téeméeri at yoo xam ne yewwu la tax ñu man ko it mooy xunt mi yàlla def jant bi bu maanaam bu fenkee day day fenk maanaam ni ni xunt mi bindoo jant bi du dugg ci biir xunt bi wa tara shamsa ida talaat tazawaru an kahfihim jant bi ñoom bu fenkee day naaj bi ci bopp moo leen di moytu ñoom waa xunt bi nga xam ne du dugg ci biir xont bi lumière naaj bi wa ida garaba taqriduhum daata chimali noonu noonu la ko toppe nga xam ne ña nga fa ni yëguñ lu gaar gi riir yàlla itam di leen def xam nga nit ki bu tëddee benn place bi benn place nit ku ko tëdd sa yaram fi mu ne ci sa biir dañuy jur ay ay xeeti yoo xam ne dañuy lekk sa da ngay mujj doon doonaat suuf moo tax yàlla da xam ne wa nuqallibuhum daata al yamin wa daata shimal maanaam dañ doon bërëndiku léeg-léeg ñu wëlbatiku léeg-léeg ñu wëlbatiku loolu moo tax seen yaram yàquwut ñu def ko fa nag ñetti téeméeri at yoo xam ni toftal na ñetti at ci boo ko limee ci at ati wolof yi ñuy wax léegi nag xis bu ngeen gisee saaroo kon tegtal la ngi ci ci ne ku ku ku say ku nekk ci yoonu yàlla bañ sonal la sañ ngaa génn foofee dem ci beneen dëkk beneen xisaa ngi dem ci biir suurtu Kahf bi mooy Sayyidnaa Muusaa ak Xudar nga xam ni Seydina Xudar lam doon jëflanteeg Moussa lépp ay mbir la yoo xam ne kenn mënu ko dégg ci kaw gi xam ngeen dañoo ànd di dox te moom ba mu ñëwee lam njëkk wax Moussa mooy bul laaj dara loo gis neel cell bul jéem a xam li feeg waxuma daal neel cell mi ngoog musaa ne ko insha allahu loo ma wax rek dinaa ko def du wala laa onsi laka amran du ma la moy ñu dox ne suut bi ñu demee ci géej gi ñu dugg ci genn gaal xudar la njëkk a def mooy jël sémmiñam di di xargaañ te xam nga loolu ak tooñ lay nuru Seydina musaa ne ko waaw li nga def moom wax dëgg yàlla lu mu doon mu ne ko xanaa wax ma doon bu laaj mu ne ko kon noppi naa ñu doxaat ne su dugg ci dëkk mu taseeg ab xale rek génne paakam faat ko ren jam ko paaka rend ko Moussa ne ko nag lii moom moom moom moom wax dëgg yàlla du du du baaxoon nu ko waxati nukkuran lii daal aqatalta nafsan zakiyatan bi xeyri nafsin laqad ji'ta shay'an nukkuran masalan jëf ji nga jëf du du baaxoon ndax kii defu dara nga fàtt te loolu it booy xool ci kaw gi dangay gis ne du du baaxoon mu ne ko xanaa waxuma doon bu laaj ak bul wax mun a ko noppi na bu ma laajaatee léegi nu tàqali ko ñu daxaat ne suur dem ci dëkk sonn lool xiif bëgg waa dëkk ba may leen luñ lekk waa dëkk ba lànk mu gis fa miir buy waaj a daanu mu bàyyi yitteem yëpp moom xudar ne nañ taxawal miir bi defaraat defaraatal ko waa dëkk bi Moussa ne ko liit kenn xamul mu doon yow ginnaaw ñii laaj nañ leen ñu bañ ñaan leen ñu lànk ñu ñëw di leen defaral seen seen seen miir yi daanu loolu wax di yàlla kenn xamu ko mu ne ko nag fii lan teqali ko mayaw li ma bëggee néew boo gisee xissa bi yëpp ay mbir la yoo xam ne kenn xamu ko waaye ca suuf mbirum suñu borom a ci ko wax mooy li ma doon def lépp yàlla ma ko sant xale ay baayam ak yaayam dañoo baax te suñ màggoon danañ jural seen yaayam ak baayam fitna joo xam ni mën naa soppi sax seen ngëm moo tax yàlla digal mu faat leen noonu la ko toppee li mu def lépp ci ndigalu yàlla la ko def loolu it mi ngi ci saar bi nga xam ne jullit ñi dañ ciy dégg ne kon li ñu gis ci kaw muy mettit wi wi nga xam ne moom la jullit ñi nekkee itam tekkiwut ne maanaam yàlla daa ànd ak ñi ëpp kàttan fi ne tekkiwut ne itam mettit wi mooy wéy ci biir mettit wi xéewalug suñu borom moo ci ne te yàgg-yàgg mbir dana soppiku mbir yi dana soppiku te loolu bu fekkee ne waxtu may nanu ko da ngeen gis ne mbir mi mujj na soppiku gaa ñi doon sonale mujj nañ ñoom it sonn mujj nañ maanaam ñii am kattan ñi ñu doon sonal ñi am ci loolu nag lañu yonent bi digal li kon man ngeen a dem fi ñuy wax xabasa neen xabasakat dégg naa ne buur ba fa ne kenn nanguwut kenn ku tooñ kenn fi wetam kon mën ngeen a gàddaay dem jullit ñi daa tàmbalee gàddaay booba la njëkk gàddaay xam ngeen ne bariwut ñi ngi tolloon ci fukki nit ak ñaar ci ay góor ak ñeenti jigéen loolu ñoo ñoo njëkk a gàdday ka leen jiite nag ñooñee ñu ba ñuy gàdday mooy Seydina Ousmane ibnu Affan ak soxnaam si nga xam ne doomi yonente bi alayhi salatu wasalaam muy Roqaya bintu rasulillahi salatu wasalaam yonente bi sax dafa wax ñoom Seydina Ousmane ak Roqaya wax na ñoom ñooy njaboot kër gi njëkk a gàddaay ginnaaw Seydina Ibrahim ak Luut ñoom ñaar ñooy kër gi nga xam ne ñoo topp ca ñooñu nga xam ne njaboot gi yëpp dañoo maas yi génn gàddaay maanaam moom moom waa këram yëpp a gàddaay booba dem xabas fukki nit ak góor fukki fukki góor ak ñaar ak ñeenti jigéen ñoo xam ne Seydina Ousmane moo leen jiite bañ demee nag xabasa nekk fa fekk ba ñuy dem ci guddi gi lañ feex ba laqtu rek dem ba maanaam xam nga Makka ak Jidda sorewuñ dem Jidda foofa la géej gëne ñu duggee fa ci bateau waa Quraysh dañ leen a yeex a yëg bañ leen yëgee jéem nañ leen a topp waaye mënuñoo fexe ba ba jot leen ñu daal dellu si yàlla dogal nag ca ca loola wax naa ne mi ngi ci atum maanaam juróom juróom juróom benneel bi wala juróomeel bi bokk juróomeel bi ca ramadaan ja nag dafa am bis fi waa Makka nekk ci pénc mi maanaam kilifay makka yi fañ toog yonente bi fekk leen ñëw rek tàmbalee jàng alxuraan fekk njëkk loola waa makka nu mu ñu doon diglu alxuraan dañoo maase woon ci ne bu kenn diglootu ci alxuraan dañ daa sàcc di dem di diglu ci guddi gi mujj nag ñu réunion ne daal bu kenn demati diglootu ndax lii maanaam ginnaaw noo koy contre di ko xeex buñ fee nekkee diglu li mu wax ni loolu loolu loolu te lii ku ko fi dig ku ko diglu rek daanaka léegi bu kenn diglu alxuraan bu leen yem ci loolu sax mooy buy wax del xaddami ko yàq wax ji ba kenn du xam li mu wax mooy li alxuraan wax ne laa tasmau li hada alqurani fii ay aywa loolu lañ daa def mooy bu dee wax fexe leen ba yàqal ko ci ay wax nga xam ne li wax bi mu wax bu kenn dégg dal del wax fee wala ngay coow wala ngay yëkkati leen yàlla dogal nag yoon wi may wax ni nga xane ne moom loo fekk na gañu gaday nay gaday nañ dem habasa yoonte bi ci ci koor ga da leena a fekk ca pénc jek jekk rek tàmbali wax bismillahi rrahmani rrahim wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى مثلا بيون تبي وخ يوم نيب دنيو ما سين كين مو مدري سين بوم خم يوم دغ نن وخ يوم خم نن لان لاي تك القران موم كي دغ عرب من دايف القران اك نيهيدو القران fi ne waxi arab yëpp buñ maasee way ak wessar yoy yëpp du ci dara bu pare itam jenen xeetu wax la joo xamni mo dakk lépp ci boole lim koy waxé ni dafa am caq jo xamni kenn mus ko deg motax bimu len di wax ñoom moomatuñ seen bop ñëpp dañ lay cel diko deg nga xam ne seen xol dara tok ci lu may li yonte bi wax diko ko déglu bi yonte bi wax a wax wax ba ag ci sujud bi wax ne fasjudu lillahi afa min hadha alhadith ta'jabuna wa tadxakuuna wala tabkuuna wa antum saamiduuna fasjudu lillahi wa'budu daal di sujjoot moom yonente bi waa Makka gépp daal di sujjoot ñoom it benn bi yëpp daal di sujjoot bi loolu amee nag ña fekk wu doon jotaay ba nag tàmbali leen yedd leen yéen daal sëñ bi mënut leen wax lu kenn dégg yéen dégg penc mépp maa ci ànd moom sujjoot kenn mosu ko dégg yedd gi ñu leen doon yedd nag tax na ñu daal fent nag wax joo xam ni moom araam sa ko loo ne dara lalu ko ci ñu ne kat yonent bi muy wax da caa boole sunu xërëm yi dafa xam ne tilkal xaraaniqu tilkal xaraaniqu ula wa inna safaatahunna la turtaja maanaam xërëm yi yu kawe lañ te seen seen seenu seenu rambu ëllëg yaakaar nañ ko loolu la ci boole moo tax nu sujjóot te <laughs> xam nga mu nekkul ci biir war nañu nekkul ci léegi nag bi loolu amee nag loolu moo sabab ña demoon xabasa Éthiopie del siwaat ndax bañ déggee fekk dañ ko siiwal loolu nekkat la tax waa Màkka sujjóot mooy yonte bi daa daa maslaa ñoom da caa boole xërëm yi léegi nag waa Éthiopie ña fa nekkoon daa tam daal di ñibbisi bañ déggee ne waa Màkka ak yonte bi am nañ jàmm ba déggoo ñu daal tàmbali ñu daal ñibbisi waaye bi ñuy ñëw ba jub Màkka rek ci lañ yëg xibaar bu wér bi xam ne kat loolu dara wéru ci ñenn ñi dañoo dëppaat dem xabasa ñenn ñi maanaam fexe ba dugg màkk ñu ëpp ci ñoom dañuy fexe ba dugg màkk na xam nga daa sore diggante màkk ak xabasa foofu di ko demaat day metti xam ngeen ne màkk itam dañoo baaxoon arab yi dañoo amoon aaday tey boo defee njaafum ba génn dëkk bi tey booy duggaat ci dëkk bi faw nit a lay gàddu ne man ci maa ko gàddu lu loolu dañ lay faat boo duggee amoo ci pexe motax ñen ñi dañu fexé ba lijeenti ku leen mëna gadd ña amul nak delwa <coughs> yalla dogal nak biñu accès ñi jotta jota accès ñibi yéfari makki gën leena son nak coono bo xamni kenn mustu ko gis tàmbali di leen sonlaat di leen defaat nañ leen daa def rek li nga xam ne ci bari nett naa ko démb yonente bi wax leen ne leen mën ngeen a gàddaayaat xam nga Éthiopie ñaar yoon lañ fa dem ne kon mën ngeen a demaat Éthiopie moo tax bi ñuy dem yoonu ñaareel bi booba ñu bari ñu demutoon dañoo far demaale ñi bi ñu mujj ñuy dem yoonu ñaareel bi mat nañ juróom-ñett fukk ak ñett ci bu ci Ammar ibn Yasir bokkee am na ñu ne bokk ci mooy juróom-ñett fukk ak ñaar kon ci ay góor jigéen ñi matoon nañ fukk ak juróom-ñett wala fukk ak juróom-ñeent loolu mooy yoonu mujj wi nga xam ne ci lañ gàddaay dem Éthiopie ba ñuy dem it fekk na boobu waa Makka ñi ngi koy bàyyi xel xam nañ ni ñoom faw ñu demaat ndax coono bii ñu leen di tegaat nii faw ñu ñu gàddaay dem moo taxoon ñu doon def ay pexe ci ñu bañ a génn dëkk bi waaye yàlla defal leen tawféex ñu fexe ba génn nañ ko doon defe rek ca guddi ci anam yoo xam ni waa Makka yëguñ ci dara topp nañ leen topp waaye ju taxut ñu gis leen bañ demee nag yoonu ñaareel wi nag waa Makka dañu wax ne kat lii buñ ko seetaanee kenn xamul fan la jëm ndax ñee mbooloo lañ waaye leen dem ci beneen buur di fa dajaloo xamul luñ fa nekkee mën nañoo fexe ba song si waat ni moo moo tax nan yónnee ca buur ba ci boppam najaas yi wax ko mbirum gaañoo ñu daw fexe bam ba mu jëbbal ñu ñu leen loola itam dañu daal di yónni ku ñu wax amru amru ibnul aas ak ku ñu abdullahi ibn abi rabia ñaar ñooñu nga xam ne yàlla daa dogoon amr ibn al-as ku ne xam na doon ku bari am ku réewum xel te ñaw te xereñ te bari pexe mook abdullahi ibn abi rabia mi booba jébbalooguñ ñoom ñi mujj nañ jébbalu ñoom ñaar ñëpp waaye booba jébbalooguñ ñoom la waa màkk yónni nag ne leen da dem ca buur ba boole koog nag addiye yu baree bari ak ak i alal yu bari ak xéewal yoo xam ne ak i bagage yoo xam ne ne bu ngeen demee ngeen jox ko buur bi ak ña ko wër ngir ñu delloo siwaat ñi ñi dawe ñi dawe màkka ñëw fa rek ba ñëwee amru ibnu as bu doon ko yow daa njëkk ci labbe yi nga xam ne ñoo wër buur bi la njëkk a fexe ba gise leen kenn par kenn kenn ku ne mu am addiyee jum la jum la jox ne la daal ñii ay xale lañ yoo xam ne tekkuñ dara te buñ nekkee fi dañ leen yàqal dañoo dëng daw fee ba ba kii ba ngeen fexe ba buur bi jébbal na leen nga xam ne moom nañ nañ dellu si ba labbe yëpp daanaka xaw a ànd ak moom ñu doog a dëkk àgg ca buur ba bi ñëwee najaasiyu ne ko wax digal abdullahi amru bnul as ne ko waxal la yëkkati amru bnul as ne ko yow buur bi dafa am ay xale yoo xam ne seen xel neexul yu jóge sunu dëkk bële ca mag dama ko wax ci wolof nii rek ndax boo ko doon waxaat ci arab di ko fii loolu day gën a nga du ne ko ay xale lañ yoo xam ni xilmaanun sufaha maanaam xale lañ yoo xam ne seen xel neexut te it maanaam dañoo bàyyi seen diina ja seen i maam nekkoon ak seen i baay te toppuñ la yow ci sa diina ndax xam nga najaas yi xam nga chrétien la woon bu gëmoon ak ak yi bi maanaam diine Seydina Isa ca la nekkoon mu ne ko ñoom bàyyi nañ suñ diine te yow ñëwuñ sa diina ji yeneen diina ju kenn xamul fu mu bàyyi ko ca lañ nekk yemuñ ci loolu maanaam lu ñaaw lu ne dañ ko dañ koy dañ koy wax ci sunu yàlla yeeg ak lan gëm nun dañoo génn daal aw xeet léegi nag ñoom dañoo daw wut si la ñoom ñëpp ñu ñëw ñu ñëw ci sa dëkk bi seeni kilifa nag ak waa dëkk ba ak seeni baay ak seeni nijaay ak seeni mbokk ñoonu yabal bëgg bëgg maanaam nga delloo leen fañ dëkk ndax kat bàyyi leen sa dëkk bi sax wóoru dañu waaye nit yàqkat lañ ba mu waxee wax ba àggal labbe njëkk jël kat labbe labbe ci wetu buur bi ne ne buur bi ah kii daal li mu wax wax na dëgg gaa yi kenn xamul fu ñu jógee daal te càqale ko seen i bokk fat leen wóoru nañ leen delloo waaye najaas yi ni ko yónte bi waxoon danoon ko maanu dana léegi bu leen gaawtu nañ woowi ñooñu ñuy wax jullit ñooñu nga xam ne dañoo daw ñëw fi nañ leen woo ñu wax ñoom ba nopp ñu doog ci jël ab dogal bañ leen woowee xam nga jullit ñoom booba dañoo daal yi dogu ci ne insha allah bu ñu wax lu dul dëgg moom nañu wax dëgg rek maanaam buñ fi nekk di wax lu wérut lu lu mën a laaje nañu wax lu wér rek lañu def ñu bàyyi yàlla ba ñëwee itam dañoo jël seen kàddu jox ko ki ñuy wax jaafar ibnu abdul muttalib euh, jaafar ibnu abi taalib boobu nekkoon magi sayidna aliyu doomi abu taalib la bi ñëwee buur bi laaj ko ne ko waaw yéen najaasi yi ne ko yéen diine ji ngeen dugg ba teqali ko seen i bokk te dugg nañ sama diine ji jooju jën diine la war a doon Jaafar jël kàddu gi wax wax wax ji gudd ne ko yow buur bi daal nun ay nit la ñoon yoo xam ne ci la nekkoon daa jaamu ay xeram yoo xam ne noo ko daa yàq ci suñu loxo yi di lekk médd di def lu ñaaw lu bon lu ne nu def ko façon ñaaw teefu wu ne def nañ ko ak mbokkit it dañ ko daa dog ak a yàq kuñ masaa dëkkalit ci tooñ lañuy dëkk ak yow ak ñaawal dëkk yiñ ñu dëkkaale yow ku man sa moroom duma ku ëpp sa moroom doole lekk ko ku ko mën a ku mën a nax sa morom rek nax ko ci loolu nag yàlla yabalal nu ab yonent boo xam ne ci nun la bokk xam nañu aw askanam xam ak dëggoom xam ak wóoram xam ak fegoom bi mu ñëwee lim nu wax nu mooy na ngeen jaamu yàlla te xam ne benn yàlla moo am yàlla yu bari yi xel nanguwu ko te itam mboolem li suñ bàyyi nekkoon ci ci ay xërëm jaamu xërëm mu ne ngeen mu ne mu ne nan ko bàyyi te jaamu yàlla te itam mu digal nu ne dee leen wax ñuy wax wax dëgg lanu digal ak loo digg nit nga def ko na nga ko digee ak jokk bokk ak rafetal ak dëkkaale ak fegu sa fegu maanaam baña a kenn baña ray nit baña def lenn lu ñaaw baña wax lenn loo xam du doon lu maanaam wax lu dëgg lekk alali jirim baña a xas soxna soo xam ne su baax la digal nu itam nuy julli ak di génne sun alal di ko jox ñi ñàkk ak di woor noonu la ko toppee di lim yi yàlla digle yépp daa cee teg na nag bi mu waxee lo bi mu ñu digalee loolu lépp a nu dëggal ko xam ne lii mu wax moo gën a baax lan nekkoon ci loolu lan ko gëm topp ko tàmb li di jaamu yàlla bàyyi xëram yañ daa jaamu li yàlla bëgg ci noonu ñu nekk ca lim daganal ci noonu ñu daganlu ko ci loolu nag suñ mbokk yi tàmbali dinu fitnaal ak dinu mbugal ak di ñu duma ak di ñu metital sunu yónnante boobu nag xamal nu nenu yow buur bu maanu nga te ku ñëw fi yow kenn doo nangu ku fi tooñ kenn ci sa wet moo tax nu daw nu nepp wut si ci sa dëkk bi najaas ne ko waaw sa yonente boobu lam wax na yàllaa ko wax ndax yor nga ci dara loo mën a nett muy alxuraan bi ayo mu ne ko axa kay mën a laa nett kay daa tàmbali di jàng alxuraan moom tàmbali ta jàng suratul suratul suratul mari suratul mariam bismillahi rahmani rahim xam nga alxuraan maanaam ak ak wax nu mu mën a doon rek masalan xol bi nga xam ne day day day jàng nii day wax fi ne moo aju moom moom moom moom ci la aju léeg-léeg fi ne nit di jàng xasida baat ba neex lool te du def benn jeexit ci sa xol waaye léeg nit koo xam ne baat ba dara du ca naqari da day naqari lool waaye la muy wax day gaaw a jeexital ci sa xol parce que jëmmi xol bii ne rek moom moom ci la ci la jeexit di aju moo tax gaa yu njëkk ak yonente bi rawatina nga ne mooy seen sang ñoom yëpp maanaam sahaba yi bu ñu bu jàngal xol day jeexital ci xolub ñi ko ñi ko ñi ko ñi koy ñi koy dégg moo tax jaafar wax ne bi mu tàmbalee jàng suratu mariam kaf ha ya ayun sa dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya iznada naada rabbahu nidaan khafiya qaala rabbi inni wahana alazmu minni wastaala alrasu shayban walam akun bi duaaika rabbi shaqiya bi muy jàng ba mu yàgg buur bi ci moom tàmbali ronko ñi génn yitam yi itam ñoom kenn ku ne ñi kii seen ronko ñi génn ñi maanaam nga xam ne wax ji dugg na leen najaasi mel ne maanaam bu doon ni ma ko mën a tudde xeetu xaal la wax ko def daal ne daal ne daal ak lu mën xew rek duma len delo ci seeni bokk dadi wax umar ibn al Aas ak Abdul ak waji nga xamne mom la andon moy Abdullah ibn Abi Rabia ne len yéen insha allah man ngeen dal adi yi ngeen fi indi won sax yóbbaale leen ko duma len jox gañi yi xalatu xalaatu dal ci tek ne ko man yàlla bi may jox ngor gi manam gëruma ko mu dog mako jox da ko neex rek mu jox mako motax nit yalla du ñew ci man ma leen ma leen ma leen genn ko ñaar bi tam bi ma koy jox nit ñi ma lañ doon wax ci man yalla topu leen ci ndax bu leen topon duma ko duma jox ngor motax na yeen li ngeen wax ci yi duma ko deggu ba leen genn sama dëkk bi daa di wax nak jaafar ak julli ñi neen yeen antum shuyumun bi ardi shuyum wax nañ ne ci lakku lakku éthiopie ci jamono jooja làkk non lak moy am ngeen karangi sama sama xeet yi du ma ci yem mooy ku leen ŋàññi ku leen xas sax dinaa ko teg ay daan ayo mi ngoog te itam maanaam montagne yi nii ngay gis li muy rëy rëy buñ ma ko tegaloon ci or ba mu fees del loolu duma ko jëndeeg maanaam jëraluma lor kenn ci yéen ñii nii loolu daal mooy yéen am ngeen kaaraange daal yéen ngi ci jàmm ñu daal di féex nag Najaasi xam ne daa mujj tuub mooy li mooy li mujj wër mooy li wër daa mujj tuub xam nga dugg ci lislaam waaye fi ne loolu dañ caa yëmul mooy biñ génnee Amr ibn al-As ku bari pexe dana dana Abdullah ibn Abi Rabia man samay mbir jeexagul am naa xalaat bu ma bu ma am nan delluwaat ci bunt ci suba sa nee mu del siwaat ne ko daal daa am loo xam ne sax démb aggunu ci mooy gaa yi li ñuy wax ci Isa boo ko déggoon moom moom moom doo leen fi bàyyi ñu ñu fi ne xam nga ñoom chrétien nga xam ne wax doomi yàlla la ak nangam maanaam li ñu wax li li li da ko bëgg a wax ne ñoom li ñu wax ci isana du du nitu kese la du doomi yàlla ak ak nangam yooyu la yaakaar bu bu ko waxee dana kii moo tax mu ne ko léegi dama bëggoon nga laaj leen li lan lan mooy seen xalaat ñoom ak seen gëm-gëm ci isa moomu alayhi salaam najaas yi daal di woo jullit ñi jànfar ñëw bañ ñëw it ñu waxati lañ waxoon rek bu ñu demee lu mën a xam nañ wax dëgg rek mu laaj Jaafar Jaafar danañ ko am am xel nekko ko waaye lu ngeen wax ci na ci Isa Jaafar ne ko nun de liñ ci wax mooy Abdullahi alxuraan li mu ci wax yii rek la mooy Abdullahi jaamu yàlla la wa rasulu ab yonente la itam ab yonente bi yonente bi yàlla la itam wa ruuxuhu ruuxuk sun borom la koo xam ni moo ko jël def ko ci na Mariam nga xam ne amul baay maanaam ruux goo xam ni ni yàlla sàkk yenn ruux la ko sàkk rek wa kalimatuhu itam alqaaha ila maryam ba tey itam baatab suñu borom la ni ko alquran waxe mooy yàlla ne kun fayakun ci loolu la ko bindee waaye xam nga Seydina naa amul amul waajur wu góor amul yàlla bind na nit koo xam ni amul ndey bind nit koo xam ni amul baay bind koo xam ni am na ndey ak baay bind koo xam amul ndey ak baay yàlla moom mooy ki xereñ moo mën lépp Seydina Adama xam nga amul baay amul ndey Isa moom am na ndey waaye ak bàyyi la amul xawa am na bàyyi ndax ci na Adama la jóge waaye amul ndey mi ngoog am na ñun nit ñi ci des ñëpp nag dañu am ay ndey ak i léegi nag bi mu waxee moom Jaafar ba àggal buur bi ne ko lii nga wax daal ak la Isa doon jàngale benn la nee na làbbe ci wet gi tàmbalee xàddami ko mu yéen a xam de ndax lim ne benn la loolu la kii xam moo tax najaas yi dafa mujj tuub léegi nag bi loolu amee nag Amr ibn al-As moom daal dellu ñu xam ne lañ doon nar dégg nga am mënut sottiwut ci loolu nag la Quraysh ne léegi daal mbir mi daal lenn rek koy saafara mooy Muhammad mii nga xam ne moo waral coow li nan ko faat mbir ñu noppalu ndax ginnaaw li coow coono yi ñu am at yi ñu def dox fii ba fee te loolu def dara sotti ko mbir mi di gën di yokk nan ko faat ñu daal def délégation waat ci Abu Talib bi ñëwee nag <clears throat> tàmbali di ko xupp di ko wax ne ko ah yow abu taalib daal xam nga ne ñun jox nañ la cër te itam weg nañ la ndax sa at yu bari yi nii waaye nag liñ la may xam nga ne ëpp na sa sa sa xale bii nga xam ne yow rek yaa dox suñu diggante moom mu nekk li suñu bàyyi nekkoon lépp mu ne caaxaan la di di xas sunu sunu sunu bàyyi ak di leen wax ne dañu amatum xel di leen sikkal loolu daal wax dëgg yàlla xam nga buñ ko seetaan yow rek la léegi nag danoo bëgg nag mbir mi moom moom daal tey mu jeex tey daal benn daal moom nga dox sa suñ diggante ak moom saafara ko wala yow nu boole la ak moom xeex la yéen ñaan Abu Talib biñ ko waxee loolu nag loolu xaw a ci moom tuuti xupp giñ ko xupp noonu xaw a ci moom mu daal di woo Muhammad wax ko li waa Makka wax Seydina Muhammad jaar fa mu jaaroon ne ko wallahi law wadau shamsa fi yamini walqamara fi yasaari ala an atruka hada al amra xatta yudhirahu ne ko giñ naa ci yàlla ne waxuma la alali adduna waaye jant bi jomb yéen ko jëloon teg ko sama loxo bii maanaam loolu mbindeef mënu ko ma xam ne loolu doon ba weer wi itam ngeen jox ko ngeen tegal ma ko sama càmmoñ bii loolu boobaa du tax moo bàyyi lii ma ne bi mu ko waxee rek ronkoñ gi tuuru alayhi salaatu wasalaam abu taalib daal di koy daal di koy ñeewantewaat nag yërëmaat ko ne ko man giñ naa ci yàlla ni du ma la jox ñi mukk waaw li yi bëgg duma ma du ma ci ànd ak ñoom mukk ne loo mën a def it loo loo mën rek loo bëgg rek bu la neex nga def insha allahu daal maa ngi ànd ak yow daal cee ay bayit yoo xam ni ilaa taarix du dañ di ko seeral abu taalib mooy li mu wax ne ko wallahi lan yasilu ilayka bi jamcihim xatta uwasada fi turaabi dafina fasda bi amrika ma alayka gadaadatun wa wabsir wa qarra bi daaka minka uyuna masalan giñ naa ci yàlla ne bala ñoo agsi ci sa kaw ci man sama sama néew la ñuy jaar ana abu talib moo tax nit ku baax la nit ku baax la moom moo tax moo gis moo tax borom xam-xam yi dañuy werante moom jullit la am du jullit ndax xol bi moom gëm na yàlla moom te itam lim jariñ Seydina Muhammad défendre ko jamono jooju bu doon ak moom maanaam xanaa yàlla yàlla yàlla yàllaay dox diggante ma gaañ mi ngoog <coughs> ne ko ne ko na sedd insha allah moom bala ñoo agsi ci kaw rek sama néew la ñuy jaar bi loolu amee nag Xurays toog ay fan gis ne Abu Taalib deful dara sidna Muhammad leen romb di dem ak di yàkka ji dem ak di kat ñu defaat beneen délégation demaat ci moom ne ko daal léegi nag xam nañ ne sax Muhammad moo am na fu mu la toll ndax ni mel ci yow wax dëgg yàlla leen li doo ko mën léegi liñ bëgg mooy jox la ki ñuy wax Amara ibnu ibnul Walid ibnul Muxira doomu Walid ibnul Muxira ku ñuy wax Imara wala Amara دون خالي بو ريو تي باخ لول تي باري باري باري ام pexe bari ay pexe ني نكون دا nag dañoo bëgg xale boobu ñu far jébbal la ko mu doon sa doom nga def ko di jikko jefandiko ci lo beug mu nekkal la fi dal te nga jox nu muhammad muhammad alayhi salatu wasalam aw dal ni yéen li ngeen beug li ngeen beug xam ngeen do ko def yéen yéen ma beug jox seen xale ma diko ko añal ka reeral diko dundal ma jox len sama dom ngeen fàtte lol kay xam ngeen xalatu ki ñu wax nag al mutim ibnu uday ibnu nawfal jël kàddu ne daal abu talib wax dëgg yàlla fu ne jaar nañ faa yow ngir bëgg laa bëgg daal yow am pexe waaye fi ne yow nag nii koo waxal abu talib nekko daal jaru leen ak man fen waaw li ngeen bëgg laa du def te lu leen neex daal mën ngeen caan lu leen neex rek mën ngeen caan man daal fi ma ne maa ngi boo seetloo <clears throat> ñaari dikk yu mujj yi xam nga loolu lépp mi ngi ci diggub juróom-benneel at mi maanaam juróom-benn at mi ba yonte bi tàmbali woote ba am juróom-benn at ca digg ba ci la lii lépp ci ci la ñaar yi xew ci loolu itam la lañ tàmbali ñoom it defi pexe ngir faat na Muhammad nga ne moom léegi amatuñ kuñ ci seet seetatuñ Abu Talib luñ ko mën a rey rek ñuy def noonu lañ la ci jëkk mooy ku mel ne ki ñuy wax Utayba doomi Abu Lahab mi yoroon kenn ci doomi yonente bi alayhi salaatu wa salaam moom lañ fexe ba jañse ko ci yonente bi benn bis mu fekk yoonte bi fi mu toog ci penc mi ba mu ñëwee ne ko man de ad najmu ida hawa boobu nga wax yépp wedd na ko ci lool sax alladi danaa fatadala yooyu yëpp gëm ma ci tus yonente bi wax mu daal di ko mooy tifli ko ci kanam bi ñu wax rek mu sonk daal daal di jàpp mbob mbob bi tàmbalee xot ga nit ñi téye leen yonente bi moom luñ ko masaa def du fayu daa daal di yëkkati ay loxom alayhi salaatu wasalaam ni allahumma sallit alayhi kalban min kilabik sunu borom mang ngi lay ñaan daal waa nga boole ko ab xaj ci sa xaj yi te xam nga ñoom xam na ñaanu yoonte bi loolu ba bañ ko bañ ko defee tey ba ay fan la ca teg yàlla dogal mu ànd ak ñenn ci waa makka di dem sam benn dañ doon wuti marchandise waaye dañ doon dem saam fu ñu wax siri tey ba ñu dem nag ba toll bërëb bi ñuy wax ak zarqa zarqa ci yoon wi fekk àll bi xam nga àll bi day fàtt taraj fi ñuy dox nii ba mu yàgg rek ñu seen ñu yëg ne gaynde ngi ci seen ginnaaw dañ ne tuxat gi seen gaynde gi ndakate gaynde gi moom it ngi leen di topp ndànk di def tey ngir bëgg cee fàdd kenn moom moom ba mu ko séenee la ne Muhammad faatoon na mu bu yàgg ni wallahi akili kama daa muhammadun alayhi xatala ni waxoo bi makk wallah moom de giñ naa yàlla gaynde gi man rek lay lekk tey ndax na muhammad waxoon xam naa dara du ko sopp moom ba mu nekk fa makk la nekk Fatma nam ko waxoon rek fa ñuy dox yàgg gaynde gi wut si leen gaa ñi daw rek mu njëkk ko jot daal di lump bopp bi gaynde gi aywa kenn la ci ñooñu am na ku ñu wax it uqba ibnu abi miayat moom it waa Màkka mën nañ mas nañ ko jance ba mu fekk yonte fi mu toog ci kaaba gi di julli bi mu sa nii rek mu jël tànk bi bës ko ci ci ci bopp loxo yonte bi di ko bës ba maanaam yonte bi bët yi maanaam maanaam maanaam maanaam da nga am xulli wax dëgg yàlla alayhi salaatu wasalaam ba tey it <clears throat> ibnu ishaq lim natti wax ne abu jahlin moom it def na loolu ay yoon ci yoon tamit alayhi salaatu wasalaam mooy li ma net loon dem ak it benn bis mes naa ñëw ne faw ma jël sama tànk bi maanaam boo bis bu sëggee rek danaa ñëw njatt ko foofu ba ibnu abi Mihiyat moom mas na ko fekk jël loolu danaa ñëw léegi waaye abu abu taalib abu jahlin am na bis boo xam ne moom it danaa ko def ba mu demee ba ca ba jege yonante bi moom it yàlla dogal mu jekkee ki daw nam defoon daal di samp aw xelam ñu laaj ko waaw abu talib abu abu jahlin looy def ni mu ne bi ma jegee bi ma demee ba jege yonente bi damaa gis lu mel ne bopp gileem boo xam ne bokkut ak gileem yi ponkalam bopp moo xam ne xam naa bu ma seq mu mu mu mu seex ma moo tax mu arrière ci loolu itam abu jahlin it am na boo xam ni lam def moo tax xam sa tuub dinaa ñëw léegi waaye ibnu ishaq itam li na ne am na boo xam ni waa Màkka neen dañoo toog ci penc ma ñoom ñëpp daal di waxtaan ci mbirum Seydina Muhammad kenn ku ne daal nun daal wax dëgg yàlla lii nuy seetaan du du du jëm kër te itam kii liñ ko muñal daa daa bari fawu nan ci def pexe nee na yonente bi fañ ko waxee rek yonente bi jóge këram ñëw romb leen bi wër kaaba gi nee kenn ci ñoom di ko wax wax joo xam ni kenn mënu ko dégg wax ju ñaaw yonente bi wër ba mu ñëwee ba tolluwaat ak ñoom mu dellooti ca wax ko wax joo xam ni kenn mënu ko dégg yonente bi ba mu wëree ba àggal toll ñoom ne leen yaa maachara quraish di walladi si bi yadihi laqad jiitukum bi dabxi maanaam yéen waa Quraysh giñ naa ci yàlla mi nga xam ne sama nos mu ngi ci loxoom maanaam faagaga leen ni ñëpp moom moo ma tax a jóg gërëm doon xupp ñëpp tiit moom ñoom ñëpp kenn ku ne ne yàgg rek ndax xam nañ ne moom ni mu ko waxee incha allah bu mu noonu la demee wax na itam am na ci ñoo xam ne sax gannaaw ba ñu ngi ñëw di maslaa moom. bañ bëgg mu mu ñaan lu leen génne ci ci wax joje nee na ca suba sa rek itam yonente bi delsi fa taxaw di julli ca Kaaba ga ñoom ñëpp ñu ñu ma si jatt ko fekk ko jatt ko fa di dóor ak di weq ak lu ne ñu nekk ci alayhi salaatu wasalaam nee na Seydina Abubakar soxna Asma wu nett na ko imaam Buxaari nett na ko wax ne suñ soxna Asma nee na Abubakar daa jekkee rek ñu ne ko sa waaji daal boo gaawut moom moom da ab néew nga fekk nee na mu réere këram rek wut si leen bi mu ñëwee maanaam ñi ki njëkk fekk yaakaar na abu jahlin maanaam am na kenn ci ñoom tam fekk ci kaw yonente bi rek da ko da ko riir rek da nga am fàddu ko rek ànd ak moom daanu fële tàmbalee dóor gaañ yi itam fu mu abubakar moom di ko dóor di ko Uqba ibn Abi Mu'ayt wax na ne moom moo jël ay dàll moom di ko ko kurfañ ba mujj nee nag kanam gi xàmmeewoo bakkan beeg ak bët yi fu mu jëlee kanam gi yëpp daa maase réer maase doo ci deret xàmmeewoo lii mooy bakkan ak lee mooy lee mooy nangam waaye la ca dewaar mooy abu Aboubacar bëggam bëggum bëgg yonente bi wax nañ dajaa dox xam moom keroog bañ koy bàyyi moom daa xam moom Aboubacar radiyallahu anhu yàlla dogal bañ demee ba ba ngoon ba guddi fekk ay bokkam ñëw nañ jël ko yóbbu kër bi bañ nee ba ci guddi nag ci la mu abu sayidna abu bakar waaye ba mu ximbuliko ko njëkk wax mooy maa faala rasulullahi waaw yonte bi du mu def mbokk yi ne ko yow doo tal sa bopp yow yonte ba moom lu man a defee yow yaa ngi ni doon faatu ñëpp jàpp na da ngay faatu ñu suur da nga naan yonte bi ca la mbokk yi mer nag ñu bàyyi ko fa ak yaayam yaay ji lijjanti ngir jox ko lekk mu ne ko giñ naa ci yàlla bala maa lekk damaa xam nu yonent bi def ji ne ko man yonent bi nga xaw ma xaw ma ko te mënumaa dem këram mu ne ko da dem ci ki ñuy wax ummu ummu jëmi bintul xataab boo demee laaj ko dana la wax fu yonent bi ne wala lu mu def mbiram yaayam dem ci umu jamil umu jamil ne ko man daal wax dëgg yàlla xaw ma yonent bi fum ne ak lu mu nekkee xanaa bu la neex daal nu ànd ma xool sa doom jooju nga fu mu jëmel wax ne bi mu ñëwee ba gis Seydina Abubakar daa yuux ngir melo yi mu ko fekk ak door yu door yu mbett yeeg ak ni yaram yi mel waaye Seydina Abubakar taxaw temm ci ne moom bala moo lekk mbaa mu naan daa xam lu yonte bi nekk ci la ko yaayam ne ko mujj ne ko nag yonte bi ci jàmm la ne dara jotu ko xewlul mu ne ko léegi itam bala ma mën xewlu damay dem ba ci la ko yaayam lëng ak ummu jamil moomu bañ àgg ci daarul arqam ibnu abil arqam mu fekk fa yonente bi alayhi salaam bi mu ñëwee bi mu ko accès rek daa daal di fóon loxo bi tam nag di jooy di jooy di jooy di jooy ne ko nag yow lu mën a xew rek ginnaaw yaa ngi ci jàmm rek alhamdulilah fekk yonente bi itam yàlla defal na ko jàmm taxut mu am ci coono doon ca ca dóor <coughs> loolu lépp boo seetloo ay mbir la yoo xam ne day firndeel ni ñoom seen yitte moo doon kon faat ko far foofu nag la yàlla defe nag ñaari jàmbaar nag dugg ci lislaam nag muy Hamza ibnu Hamza ibnu abi Hamza menn ibnu eh, Abdul Muttalib ne kon bàyyi bu ndaw ci yonte bi ak Seydina Omar ndax yonte bi fan yee daa ñaan wax ne daal suñu borom a lay ñaan nag nga dëgg dal diine ji nag ci ci kenn ci gaa ñi nga xam ne moom buñ ci duggee ñu wekk ndax boobu wéguñu woon maanaam benn jullit Hamza li ko tax dugg ci lislaam mel na ne waxtu yi dem na waaye ba neexam nu nu yem foofu bu subaa nu nu nu dale foofu Seydina Hamza ak Seydina Omar ibnu Omar ibnu Omar ibnu eh, al-Khattab ñaan yooyu bi ñu duggee ci lislaam nag ci la lislaam ci mu soppi ko ay mbiram nag ci la mujj lañ daan nëbbu feeñ làqatu gi ci bàyyi ko ci lañ mujj daal mbir yu bare bari soppi ko moo tax Sëñ Tuubaa boo gisee Seydina Omar da ko fonk lool waaw ah, wax ne moom moom moom alfaaruq mooy bi ñëwee ci la dëgg ak neen teqali ko kon bu subaa bu subaa dañu tàmbale foofu ma jeexal rek ci li ma doon wax mooy weer wi itam di weeru gàmmu day weer wu am solo sëñ Tuubaa da ko fonkoon te itam képp ko xam ne sëñ Tuubaa ngay dàkk gis naa ne boo ko ci dàkkee di nga jot sëñ Tuubaa di nga jot yonent bi alayhi salaatu wasalaam Sëñ Tuubaa daa àgg ci wax ne li mawlidil muxtaari sirrun yuktamu id sawnuhu anil wara yanxatimu maanaam weer wi am na secret yoo xam ne dees koy nëbbu maanaam nit ñi waruñ cee jote maanaam loolu ci nga xamee riyaayu maanaam maanaam maanaam maanaam weer wi ak li ci ne Sëñ Tuubaa boo gisee bari na may yoo xam ne day wax ne ci weer wi laa ko amee dinaa ci ñëw insha allah benn bis waaye itam màggal lu mel ni bisu guddi Yonent bi sëñ bi da cee digge yu bare bare bare bare wax naa fan yëpp bi seet mu wax benn tey ji itam dinaa ñëwaat ci benn mën ma wax li mu wax ne ixyaau mawlidil basir yaxmil iyaala wa duyuur ko mokkal fihi shifaun lis sudur barakallahu fikum mu ne ixyaau mawlidil basir yaxmil iyaala wa fiihi shifaun li sudur li kulli haarin yantami loolu rek bu fekkoon sëñ bi waxu ci leneen te wax loolu rek doyan na ci ñu fonk guddi gi mooy dafa ne boo di dundal guddi guddi gi maanaam yaxmil iyaala wa duyóor dundal gi nga koy dundal dana yàlla dana ci jaare sàmmal la sa njaboot sàmmal la sa sa kër ihyaau mawlidil basir yaxmil iyaala wa duyóor fiihi sifaun li sudur li kulli haadin yantami maanaam màggal guddi gi su ñu doo xam ne ku koy def jëmmi màggal gi nga ko màggal la la ci yàlla fayee bokk na ci mooy yaxmil iyaala waddu yooyu maanaam lay sàmmal sa njaboot aaral la leen sàmmal la sa sa kër maanaam loolu rek jar na ko jar na lu ko bu sax sañ bari na mag ñoo gis ni ñu taxawal kër maanaam kër ga te taxaw benn dépense du fa am wala waa kër ga bi kenn tawat nga yóbbu hôpital boo ñëwee keneen tawatati wala yow sa dara doo ko mën wala ngay xëy ci marché ba doo am dara loolu lijjanti mu të nga mujj dugg ci njabarkat yeeg sëriñ tariyaax yi koo demit mu jël la nga yor lépp wax la loo xam dara du ca kii nga mujj nag mere ñëpp nga xam ne da ngay mujj mere société bi jafe-jafe yooyu boo gisee yu njëkk yi jafe-jafe yooyu dawuñu ko am li mu wax lu mooy cheikh taxu misk nga nekk murid bu mag di borom xam bu mag docteur docteur la dëkk fii murtani moo bind téere yu bare bari Fathul Taymiya fil Mizan ak Karaamal Sëñ Bamba ak téere yu bare bari dafa wax ne moom seetlu na ne maanaam murid yi nekk Mauritanie seetlu na ñoom ku ci jël maaxoos bi wirdu maaxoos da doon am murid ndax ñoom seenu murid lu ci bari dañ koy li ñu koy firndale mooy jël wirdu maaxoos bi dafa ne na nag ña jël wirdu bi di ay murid ñoom ñëpp dañu am salaaxul xaal te dañu gudd fan loolu la seetlu maanaam salaaxul xaal mooy du ñu problème jàmm ci la ñuy dem waxtu ak mbégte moo xam ne daanaka problème buñ maanaam mën nañu bañ yor dara waaye problème ñu jub yàlla saafara ko murid dëgg dëgg noonu noonu la daa def murid dawut am problème murid bu amee problème rek war naa seet boppam ak muridam ndax ñekkut lu koy xajamal moo tax nag bokk na ci nag maanaam yi nga xam ne mooy may murid yi loolu mooy lu mel ne fonk bi ñu fonk gàmmu sëñ bi wax na ne suñ suñu borom bokk na ci lim la ciy defal mooy yaxmil iyaala wa duyóor da lay sàmmal sa njaboot aaral leen sàmmal la sa kër am na ñoo xam ne kër kër yi ñu am daan kër goo goo taxawal mu lakk ñaari baat ñett télé yàqu ëllëg maanaam mbaar mi daanu fee <laughs> bu ëllëgee da cin la yàqu bu ëllëgee da am lal bi rës maanaam bisu seen nga nekk coono ci kër goo xam ne yàlla nag bu la sàmmalee kër gi yooyu yëpp da ci mucc loo kër kër ba am dépense rek kër gi jàmm jàmm ju ne béy moo fi ne yàlla na yàlla defal jooju jàmm loolu rek jar na jar na jar na jar na dëkk di gàmm waxtu ne yàlla na yàlla defal tawfeex yi di ko màggal at mu ne wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu